cheikh borom Mbaor Fall kenn ngaw am di cheikh Fall Moustapha maam cheikh Rafal yaa nu gindi dimbal noo Fall yokku noo te may nu loo tun nangu addi maam cheikh Ibrahima Fall kon bu ñu wàccee ci baatu sikar la ilaha illallah ñu jox asan Baye Fall mi nga xam ne jotaay bi. te nekkal fi maam Cheikh Ibrahima Fall mu jàllale kaddu moog sëñ Moustapha Ndiaye ñi nga xamante ni moo fi jëwriñu sëriñ Cheikh Fall Ndigal ñuy waajal nganuk sëriñ Cheikh Fall Ndigal ak maanaam liggéey boo xam ne mi ngi jëm ci taxawal kër sëriñ Touba fii ci Argentine yàlla dogaloon ñu am pàkk bi te fas yéene ko fondement fas yéene ko liggéey ngir jëmi sëriñ Touba di ñaan lépp luñ ci def yalla nañ ci dëppoo ngërëmul sëriñ bi ngan gee ñuy waajit yalla na gan gi egsi ak jàmm muy sëriñ Cheikh Fall Ndigal ñu koy xoole Cheikh Ibra waaw fas yéene nag mu kontaan lool waaw mu kontaan lool daal lañ bëgg ñun Baye Fall yi nekk Argentine gépp nag ci ndigal Sëriñ Assane Baye Fall mi jëwriñ taalibe yi jërë ngeen jëwti mbokki murit yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër gannaaw ba ñu sante yàlla tey julli ci yonent bi di sant Cheikhul Khadim yaakaari jaam ñi di ñaan Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou Mbacké suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak ak wér naka noonu Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaanal Serigne Sidi Muxtaar Mbacké suñu borom yokki leeram te taaf ñu ci barkeem ni ñu koy waxee rek bu ngeen gisee toogaay bi euh, mu mel ni am na lu ko waral lu waral toogaay bi muy sababu toogaay bi mooy ñëw Serigne Cheikh Ndigal Fall euh, di maam Cheikh Ibrahima Fall te mote ko sëkk mu mel ni le troit bi la war a ñëw fii ci Argentine muy 3 le 3 avril xëy na Serigne Moustapha Ndiaye bu ci ñëwee dana ci leeral lu baree bari. fi ñuy jublu rek mooy kàddu yu yoo xam ne ci suñu jëmm ji lañ koy njëkkee lottu sax ci soññ mbokki taalibe yi ndax ñu ñu ëpp pas-pas rek a nekk ci réew mi ñoo nekkit fii ci mbooloo mi ndax jëwrin moom jiita julli la rek du gën a mokkal nit ñi arxuraan wala nga gën leen a ragal yàlla déedéet moom nammeel gu sëriñ bi namm la rek jël la toftal la ci kanam mbooloo mi waaye nag du dara li ëpp solo mooy ab pas-pas ak liggéel sëriñ bi may soññ rek mbokki taalibe yi ci ñëw sëriñ Cheikh Ndigal Fall fii ci Touba Argentine di ci woo sëriñ Yankooba Gueye mi fi jëwrinu sëriñ Touba bu ñu ko tuddee rek tuddu na jëwrin yépp ndax comme moo fi jëwrinu sëriñ Touba te bu sëriñ Touba xasee teew moom euh, maam Cheikh Ibrahima Fall dootu fa doon dara ndax amul lu dul sëñ Touba euh, Cheikh Ibra bëggam ak jëfam ak yéenam yépp sëñ Bàmba la woon kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci am ne moom lañ yaakaar fu jëwriñu sëñ Tuubaa teew rek jëwriñu Cheikh Fall dootu fa doon dara kon nag ñu ngi koy jiital ci nuyoo beeg siyaar bi moom Serigne Yankhoba Gueye ah, di wax ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi ah, te di murit ah, Serigne Cheikh Ndigal Fall yow la ñëwal ndax bu doon suñu jëmm yi ak suñu jëmm yi rek moom Serigne bi mën naa jokkoo ñun rek yem ca waaye nag nammelu murit yi. bëggoon fépp foo xamante ne ni liggéeyub maamam bi yeggu fa rek mu yeggale ko fa ah, loolu moo ko tax a jóg di ñaan suñu borom dëgëral ko ndax day sagub Baay Faal yi waaw ah, Serigne Cheikh Ndigal Fall day sagu Baay Faal yëpp képp ku di Baay Faal rek sab sag la ah, ndax naam suñu borom dénk na ko mbooloo moo xam ne bu ko neexoon li ñeneen ñiy dugg mu dugg ci muy lu jëm ci wàllu politique ak lu mu mën di doon te kenn du ko ci dégg kenn nit du ko dégg ci loo xam ne boo ko dégg déggee xeebe ko ko wala ngay xeebab Baay kon nag kooku ñun suñu sag la te royukaay lañu ko def leneen li ci toppit mooy njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ne ay Baay Fall lan di wuyoo Baay Fall ma foog ne bu liggéeyub si Fall bi nekkee nii ah, soriwul dara nga nekk ci capital bi ñuy liggéeyal Cheikh xibra muy at yu yàgg te bari lool nga toog ci sa kër doo joxe ci dimanche Cheikh Ibra ji bu ñu yóbbul addiya ji Serigne Cheikh Jëmb Fall du ñu gis sa addiya doo teew ci daayirab Cheikh Fall bi te foo tooge sa kër naan ab Baay Fall laa mën loolu mënuma ko nangu nit ki boo nee da nga koo gëm fu ñu koy liggéeyale kenn waru la faa jiitu loolu nag bu ngeen gisee ma boole ko ci xëy na ñëpp danañ seetaan vidéo bi may soññ Baay Faal yi ci kër yi ñu fippu ñu fippuwaat ñëw liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall te xam ne lii ñuy def nii day wax dëgg yàlla mooy suñu njëriñu àdduna mooy suñu njëriñu àllaaxira leneen li ci toppit mooy kër Serigne Touba gi ni ma ko waxee woon rek ndax Serigne Alaaji Baara mbake Fàllilu daana wax naan kuy liggéeyal Serigne Touba te amut Cheikh Ibra loola wérul moom fu ñuy liggéeyale Serigne Touba faaw maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw doon seere sax kër gi nag nga xam ne jënd nañ ko ci Argentine war koo taxawal gëm naa ne dana yegg ci jàmm ak salaam ndaxit fu ñuy liggéey la Serigne Touba daaw maa ngi ko wax bi fi Serigne Cheikh Ndigal Fall ñëwee te boobu lii xewagul bu ngeen xoolee vidéo bi ma toogee ci oto bi loolu laa doon wax ma ne fépp fu ñuy liggéey la Serigne Touba te maam Cheikh Rafal ñëwu fa rek amagul seere waaw kon nag ñëw gi fi Serigne Cheikh Ndigal Fall ñëw tombeek ñuy dajale lu jëm ci kër Serigne Touba gi muy âge bi nga xam ne ñu ngi ko war a taxawal la 4 avril wal ko booleeg nga nag boroom digal faal gi kon jàpp na ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba fii ci Touba Argentine liggéey bu Serigne Touba nangu la mm-hmm. kon nag gannaaw euh, kàddu yi mi ngi bëgg gudd te euh, wax dëgg yàlla euh, li nekk ci suñu xol yëpp ñu amoon yéeney wax ko du ñu def lu dul rek jël kàddu yi di ko jébbal ki nga xam ne mooy Moustapha Ndiaye di tuubal ñëpp tey jéggulu ñëpp mu wax leen programme programme bi ana wan waxtu la sëriñ bi wàcc foofe ca Aïda Park ba ak it euh, wan waxtu lañ koy jëli kon bu ko defee rek mbooloo mépp bàyyi ko xel te ñi cay woo ñëpp di tuubal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah mu mel ne boo gisee lii li ko waral tey muy teewaayu sëriñ Cheikh Ndigal Fall fii ci Touba Argentine mu nekk deuxième édition e, daaw ñëwoon na fi ren mu war fee ñëwaat ñaari mbir moo am ci mbir mi la ci njëkk mooy E ñëw bi fi sëriñ bi ñëw li ko waral lool loolu mooy njëkke sëriñ bi dafa nekk sëtub maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh am mission boo xamante ne bii doon na ko liggéey sëriñ Cheikh Ndigal Fall war koo mottali ci àdduna bi e, yemut ci Sénégal yemul Afrique waaye dafa war a génn léegi ndax Cheikh Rafal daan na wax ne e, jëmmi jamono bu ngeen moytuwut ñu déggut làkk wolof dinañ jël yoonu murit téye ko kon loolu yaakaar naa ne la waxoon am na ci. Mhm. seere bi ma ciy joxe daaw Serigne Cheikh Ndigal Fall demoon na Afrique di Sud dëkk bu naan Soweto amoon taalibe yoo xamit ni bii tuubloo na leen fa ren jii teewu ko ña nga xam ne ñoom la tuubaloon daaw ñoom ñoo jiite liggéey bi ren te sëñ bi fekkewu ko kon la maam Cheikh Ibrahima waxoon te ñoom dégguñu olof loolu ñëw na. Mhm. kon benn mbir a ngi noonu. ñëw bi fi sëriñ bi ñëw seet si ñun taalibe yi la. ndax danoo bàyyi suñu yitte yëpp ñëw di liggéeyal Cheikh Rafaal fii ndax fii addiye yi la joo xam bi sëñ Tuubaa moo ko liggéey ñu war ko fee yëkkati jébbu ko senegal mm. sëriñ bi nag war a ñëw ndax sa njaboot fu nekk war nga faa dem nemmeeku leen xool nan toogee naka la mm. loolu mooy waral sëñ bi waaye kenn ku ne ci ñun bu la woowoon nga dagg bi dem fekki ko mm. ñëw gim fi ñëw bëgg ñoo xool laabire ñu suñuy xéewal yokku la loolu moo waral ak it mu yaatal liggéeyam Cheikh Rafaal bi loolu moo ko fi indi kon nan xam loolu bu baax vidéo bi it loolu moo koy waral bu ko defee képp ku nekk ci Touba Argentine xam ne sëriñ bi mu ngi fiy ñëw xool si njaboot gi yokk liggéey maam Cheikh Rafal bi kon loolu nag ku ko dégg ku ne te xam ne Cheikh Rafal ni mu doon doxee ak ñor na la loolu war naa nekk sa woote loolu war nga caa bay sa waar bu baax a baax ba kat bu sëñ bi ñibbee xam ne taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii nii wax dëgg fa yàlla ñu ngi liggéeyal Cheikh Rafal ci àll bi kon ñu ngi woo ñëpp ñun nag eh, ñun ñi nga xamante ne bii ci sëriñ bi lañ eh, sukk jéblu gaa yi yabal ma ma ñëw fii tey Euh, bi ñu ko sëñ bi waxee da dafiy ñëw ñu ànd koog euh, si jëwriñ sëñ Assane mi nga xam ne moo jiital liggéey bi ndax Cheikh Ibra fu ne am na fa kër waaye daa am foo xamit ne bii mooy bunt ba kon ñun taalibe yi bu ñu sëñ bi waxee ne dafiy ñëw dañuy ànd ak ki nga xamit ne bii moo fi nekkal Cheikh Ibra Fall topp ci ginnaawam ànd ak moom liggéey bi jiitu moom mu yor lépp lool loolu moo waral ñu ànd ak sëriñ Assane lépp kon ñu ngi woo Baye Fall yëpp sëriñ bi dina ñëw le 3 incha allah 21h euh, la war a agsi ci aéroport bi kon ñu ngi woo Baye Fall yëpp ku dégg suñ kàddu bu talaata ci 21h ñu daje aéroport ba teeru ko yóbbu ko ci hôtel bi muy daal mungi ngi kasaawoo wut foofu noonu côté hôtel ba woon côté boobu la dana fi nekk talaata àllarba alxames ajjuma lay wëlbati ko àllarba mooy nekk ngan gi yeneen bis yi képp koo xamante ne bii bëgg ngaa siyaare sëñ bi bo gisee sëñ Assane wala ñun ñii incha allah dina xool nun programme ba di ko organiser ba nga xamante ne bii waxtu ne mbooloo bu ndaje dinañ fexe sëñ bi génn bu ko defee euh, mbooloo mi siyaar kon ñu ngi woo ñëpp ci suñ kàddu di di jéggalu bu baax a baax a baax lu ci dëng ci ñun la ak matatuk doomu aadama waaye sëñ Assane mataloon na lépp jërëjëf Serigne Touba wasalaamaaleykum jaajëfe borom Touba nee nu jaajëfe borom Touba nee na eh, wàcc fee borom Touba. nee na nu jaajëfee borom